bisimilah rahmaani rahiim barke borom Tuubaa eh, sëriñ bi ñoo ngi jot kàddu mbooloom Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos di sant suñu boroom ci teewe gi nga xam teewe nañ ko gudd gu tedd gi di guddi xayru xalqillah yàlla dimbale ñu it ñu defe ko ci pàkk bu tedd bii defe ko it ci kër sëñ Tuubaa gii di sant yéen ñu fi teew di sant sëñ Muntaxa it bu baax a baax a baax ci tawféex gi nga xam ne moom la defal ndax lii jàpp nañu lu ñu jomm la ndax lii jàpp nañu lu rëy la lool te lu rëy la lool si noonu ndax pàkk bi ba mu ñu fi dellu de dafa am loo xam ne da ko cee tegoon te loolu dox nañ ba àgg ci tey jii ndax bi ñuy jox ndigal ci màggali si kër sëñ Tuubaa gii di kër sëñ Basiir gii di Daara Minam boobu mu nekk njaareem da see tegoon ne man de bu ma soñoon lu may def lu ne Tuubaa laa koy defee bu suñu borom doxee nag ba tey jii mu ànd kook ñun ci Tuubaa gi sant la nañ def bu wér a di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér li nga xam ne yéene na ko liggéeyal sëñ Tuubaa mu def si lu kawe njort yëpp ñu ne sant nañ bu baax a baax a baax ndax gis nañ taxaw gi mu taxaw yiir gi mu yiiru ak ni nga xam ne moom la ñu dimbalee ci fàdd yëpp lu nekk lu ne nekk na soog mën ba gàmm gi mën nañu wax ne lépp moo ko jagal si jëfam ak taxaw ak ñaanal ñu ak teg ñu si yoon woo xam ne it yoon wi jëm sëñ rek la kon Mbàkke ñu ngi yóbbante ay cant ak i ñaan di ñaan nag ni ko waxee sànq rek ndaw la ñu fa fas yéene liggéey sëñ Tuubaa na ko dand rek bëgg leen rek la mag ñi amoon sëñ Tuubaa daal wóor nañu sëñ Tuubaa tey jii la fi gën a ne te moom sëñ Muntaxaa moo fi sëñ Tuubaa gu wér a wér la mag ñi àndoon sëñ Tuubaa nag am nag loolu lañ bëgg a am ci sëñ te wóor nañu buñ ko sàkkoo ci moom des na ko mën a am loolu nag danaa ay ndaw lañ yoon yu bëri pakk ñuy ñaan bu baax a baax ku ñuy ñaanal ku ñu wommat ku ñu teete mu ñu tegu ci aw yoon bañ tegu ci yoon wi nga xam ne mooy li suñu borom di hasa siraatal mustaqiim fattabi'uuhu rek topp yoon wi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa rëddal rek bañ ko wàcc senn saa ba ne dand jëm ci moom rek ni mu ñu ko waxee barki démb rek ne yoon wi moom mooy diir sëñ Tuubaa rek diir sëñ Tuubaa googu nag bëgg nañ Mbàkke lool ku ñu si dalee ñaanal ak jàppalañ si ba ñu diir sëñ Tuubaa ba mën a jot sëriñ Tuubaa ndax moom moo nekk si xol yi moo nekk si yéene yi moom rek mooy li nga xam ne moom lañ bëgg kon yaakaar naa bu ajoo ñu guddal kàddu yi lépp ak cant la rek ak ñaan waaw moom day Mbàkke ni mu ko leerale rek noonu la wante nag lépp ñun bis la yaay suñ bunt wa aatool bu yoo tamit na ab waabiha nit ab néeg gisu ci dugg te jaaroo ci bunt ba tànnoo sëñ Muntaxa boole ñu ak yow ñun tànnuñ sëñ Muntaxa boole ñu ak yow moo ko def ci coobareem te day lii nga xamante ne bii gis nañ ko fi ci ay xéewal sang bii dikk wax ma ko wax dëgg yàlla mbàkke bu sëñ bi joxewutoon aw nag it doy na sëkk fii ak ca daara ji waaw mu wàññeeku xéewal yi sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir andi dellu ci tëjawaat kon nag sëñ bi li ñuy ñaan yàlla dara taw toom te koo mas a gis mu jóge fi bàyyi na fi ay yéene bàyyi na fi ay yéene sëñ Basiiru bàyyi na fi ay yéen sëñ Moustapha mi ko fi toogaloon def fi liggéey boo xam ne sii kenn ku nekk teg na ci bëtam akub noppam dégg na ko bëtam tege ci bàyyi na fi def na fi liggéey bu rëy ñu bëgg nag kon Mbàkke liggéey boobee na la sëñ Tuubaa dimbale ba nga àggale ko àggaleel ko ko defaat yeneen defaat yeneen defaat yeneen ci sa kanam baay bii kon nag jërëjëf Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Eh, bokki taalibe yi Cheikh Mouhamadul Abdoulaye dafa waxoon ne am na jëmm joo xam ne moo jiite woon seen liggéey bi daaw muy sëñ Thierno Ndoye nega ni si daaw ñu àndoon ak moom liggéey bi fii te yàlla dogal mu jiitu ji mu ne kon wóor nañu ne li ngeen doon def lépp fasaale ngeen ko ci waaye nag ci teewaay bi ñun ñépp nañ ànd yeesalal ko ay ñaan yoo xamante ne dana ko wóor ne ñam àndoon di lëggeel fàttewuñ kon bisimilah bisimilah ci barkem ndigal sëriñ Mbàkke yow nga xam ne yaa jiite xisbu tarixee bu Daaru Xuddoos bi te ngeen liggéey fi seen liggéey bu rafet bi liggéey bi di liggéeyu Pastef ak yéene ju mat sëkk kon cheikh moo abdul abdullahi wax na ne ci ndigal cheikh mohamadul muntaxa nee na mi ngi leen di sant lool mu ngi leen di gërëm te cant gi jiituwul jiit tey jiituwu ci ndax nee na cheikh mohamadul muntaxa dund barab bi daf ko mas a ñor saa su nekk ak waxtu wu nekk rawatina ci guddi gàmmu waaye nee na ba mu leen amee yéen ñii ngeen tàmbali liggéey bi fii la gis yeen Pastef ak yéene joo xam ne wóor na ko ne du dellu ginnaaw mu ne ko ne leen wutal ku leen mun leen a ñàkk àndandoo mu tànn leen Cheikh ab daay mii mu seen àndandoo jiite leen ci liggéey bi nee na dara deful dara taxul mu def ko nag lu dul sant gum leen sant ci seen taxawaay bi ak seen liggéey bi nga xamante ne koy yéen a ngi koy def yi loolu rek moo tax boole nag Cheikh Maodo Abdoulaye nii ndax Cheikh Abdoulaye dañ koy wax saa su nekk ne am na tawfeex fa la doon gàmmoo tàmbaloo na daan gàmmoo ay at waaye ndigal li mu jot ci sëriñ mu war a ànd yéen liggéey bi loolu moo tax fasaa sa daal di bàyyi gàmmoo ko ñëw ànd ak yéen liggéey bi kon ngeen xam ne wax ngeen ne Cheikh moom la sa dañ leen a booleeg moom waaye na ngeen xam ne ki leen booleeg moom itam li tax mu boolee rek moom parce que bu mu yéen ak seenu doxee rek moo tax te nee ngeen fàttaliku ne Serigne Touba bi muy sanc barab bi yaa rekk a taxoon sanc ko bu jaamu yàlla mën a wéetal boroomam ak mën a yar ñi ma àndal te yar googu moom kenn ku leen gis yéen ñi ak seen doxin wi ak seen melokaan wi dana xam ne yar boobu moom mi ngi ci yéen su ngeen ak bu ngeen ci boolee nag li sëñ Tuubaa bëggoon ku ko fi def te bu fi nekkoon itam moom li fi def ngeen nekk di ko def ci loolu kon nee na cant bi moom jagoo ngeen ko te mi ngi leen di sant cant boo xamante ni sax amul fenn fu mu yem maanaam fu mu taw ba amul fenn fu mu yem nee li ngeen bëgg yéen a ko xam waaye nag yàlla na suñu borom dafa leen kàttan boo xam ne man ngeen jaa def sax ba def ci lu ngeen ci xalaatu woon yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barke guddi gi nga xamante ne lu ci waaye sàkku sunu borom mën na la ko may nam gën a rafet kon mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm nee na itam mi ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey mboolem ñi nga xam ne teewe nañ ko ñëpp mi ngi leen di sant ndax lu tax mooy ñëw nañ wéttali ko ci liggéey bi mu wóor ko ne ba jotee ndigal su fekkonte ne kenn nekk bi ku du moom itam dana ko fas yéene ko kon nag bu ngeen ñëwee ànd kook moom kon loola moom ci jëmi boppam am na cant gum leen ca war a mi ngi leen koy sant bu baax ba kon nee na itam ñu xam ne mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci guddi gi ca euh, dundale ci wala ñu def ci loolu loola waxi Sëriñ Tuubaa jiitu woon na ci ñoom fa kullu man anfaqa fii mawlidihi lmusharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi xadri dirhami fa innahu kaman xadar yawma xunayni wa sabar wa yawma badri wa nasar xayra waraa mu fahim kon képp koo xam ne dundale ni ci guddi gii lum lu ci def ci dooleem aku ñaqam na ko bañ a xeeb donte ne ab dërëm la ndax bu kookee mel na ne koo xamante ne fekk woon ne yow ma Hunay waaye mu muñoon nag ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa bañ a daw mu moo teewoon bisu Badar bokkoon ci ña doon jàppale Seydina Muhammad ngir kawel baatu yàlla suñu borom te yaari daraja yooyu daraja daraja yoo xam ne dafa mel ne faatoon na kon nag lépp loo xam ne jaam bi dig nañ ko defe ne boo ko defee ne da nga ca am ñaari yoon yooye kon loole war na caa gar ba kanam kon mboolem bokki ñi nga xam ne jàppoon nañ ci yépp ñi ngi leen di sant bu baax waaye nañ xam ne liñ doon def itam lii la leen di jural ñi ñi nga xam ne dañ ci doon dundal te teewuñu waaye ñi nga xam ne dañ ci doon dundale ba noppi teew boole ci ànd ak ñi doon dundal guddi gi ñooñale Serigne Touba wax ne fa kullu man qad hadara mawlida afdali man muhashiman mubasira bi shukari awlaami fa innahu qad safira bima yudimu lbushara wala yulaaqi darara yawma ijtimaai umami kon loo xam ne soo ko defee da lay jural mbégte moo xam ne day sax ba faw day tax lori ëllëg doo dajeeg moom loola kenn ku ko xam ku nekk luñ la ca luñ luñ la ca teg rek war nga ko tegoo ba teg teg ca sa bopp sax loo xam ne kenn tegula ko ci woon kon nag nee na moom mi ngi leen di sant ci moomu Cheikh mun taxaa ci seen jëf ji nga xam ne Pastef dong ko lal ak yéene ji ma sëkk ak mbëggeel boo xam ne wóor na ko ne moom moom ngeen ko ambal ndax jëf ji rëy na lool yàgg na lool metti na lool waaye delluwu leen ginnaaw te loolu seet moom nee na mi ngi koy seere te mi koy seereel sëriñ bi itam te li ngeen fi nekkee na ngeen xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha lépp xam na ko lépp mi ngi ci ànd ak yéen ndax lii rek la bëgg lii la bëgg ku fi ku koy def te pakk bi itam la bëgg bëgg na bokk bokk na ci pakk yi mu gën a bëgg mu dund lool kon nag yéen a fi nekk di ko fi def li mu bëgg li nga xam ne moom moo foo doon a toog di ko fi def ngeen toog di ko fi defal kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mboolem mbokki taalibe yi ci jàpp yépp ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax ci eh, njiit ci eh, ndigalal Cheikh Mouhamadou Abdoulaye mi nga xamante ne mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kon nekk yal na yàlla suñu borom doo leen dimbale ba ñu teewaat ko fi ay yooni yoon cheikh Mamadul Ablaay wax na ne nañ ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaxa liggéey bi nga xam ne sóob na ko yàlla sunu boroom dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm mboolem li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu liggéeyal ko Serigne Touba te ñu ànd ko ak moom te mu yàgg lool ngeen xam nag ne jàkkaarloog nit di ko ñaanal. Serigne Touba wax na ne bokk na ci ñaan yi nga xam ne suñu borom di ko delloo mooy ngay ñaanal jëmm ji te fekkiwu ko kon nag nit ñi nañ koy ñaanal nañ koy ñaan ci xol ak ak saa yu ñu wéetee loole dana tax ñaan gi gën a nangu ngeen xam ne itam ne am na lu Serigne Touba wax lu am solo mooy yow mi nga xam ne sa xol dafa lëndëm yow mi nga xam ne sa xol da nga ci yëg ak texee nee na fekkeel fu ñuy mawlit guddi gi ñi ca doon jàng suñ jàngee ba noppi ndox ma lori lori njàng ma ñu tuf la ko ci am ndox nga naan nee na soo ko defee day leeral sa xol te itam day tax sa xol di dund ba ayib di ci am da lay aar sa digganteeg texee moo ko yu nawirul xalba shara min dalika al maadi mujaab wal qalba yuhyi duuna wa an shaqayin yaatami kon nag njariña ngoog loo xam ne nañ ko màngu ñun ñëpp te jariñoo ko ba déwén ak jàmm insha allah te kenn bañ a màngu jërë ngeen jëf bismillah nañ ñëpp tàllal amin amin amin amin amiin